asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu topp ci MK TV ci jataay bi ñu tuddee mborum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi leen di nuyu di leen ndorkeel bu baax ci weeru tedd wi nga xam ne ci lañ nekk muy weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam weer wi nga xam ne ci la yonent bi feeñ ñu dellusiwaat ak dellusiwaat ak yéen ci jataay yi nga xam ne moo tudd mboorum yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ciy waxtaane jaar-jaari yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñu tàmbale woon ko ceew askanam ci gën ak jamonoom jaar-jaar yim jaar yëpp ba ni mu wootee lu mat fukki jataay ak benn yoo xam ne nii waxtaan nañ ci ay waxtaan yu yaatoo yaatu yu dugg ci ay détails yu am solo dellusiwaat nañoo ngi yéen ci jataayu fukkeel beeg ñaar alhamdulilah ñu del si ci weer wi nga xam ne ci la sëriñ bu mag bi waxoon ne mooy weer wi nga xam ne képp koo xam ne am nga ragal yàlla weer wi bëggal na la basharta yaa rabiixu kulla si tuqaa yaa sarfa nuurin wastifaa in wantiqaa yow day yow rabiixul awal yow weeru gàmm képp ku amuk ragal yàlla rek bégal nga ko yow mi nga xam ne yaa làmboo leer yi yaa làmboo njariñ yi yaa làmboo yu am solo yëpp muy weer wi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu nga wasallam gane jamono dafa mel ne ci silsila biñ doon def di waxtaan maanaam càllale giñ doon def di waxtaan nga xam ne doon nañ góorgóorlu ba luñ bàyyi dara lu am solo ci jaar-jaaram yi tey ñaare dañ doon def kuñ agsi ci ñi nga xam ne lislaam xam nañ leen xam na leen ñu siiw ci lislaam bu ñu agsee ci tur yooyu dañ ci daa taxaw di ci yaatal lu bare bare bare bare rawatina ñi nga xam ne dañoo jege yonent bi sallallahu lool rawatina ñi njëkk a ci jataay yi weesu wax nañ ci yu bare bare bare jataay yi di jëmit incha allahu taala ñi nga xam ne seeni tur feeñutoon suñu agsee ci ñoom danañ ci def ak leeral ba nga xam ne ku dégg seen tur rek da nga am loo xam ci gaa yu baax yooyu nga xam ne yàlla gërëm na leen yonent bi ñu àndaloon it gërëm na leen radiyallahu taala anhum wa nafaxanaa bi barakaatihim ñu ngi woon it ci marxala makkiya muy étape bu makk nga xam ne fukki at la ak lu teg euh, wax nañ ci njëlbeen gi woote gi wax ci saxaaba yi ni ñu doon duggee ci lislaam daanaka étape yi ñu toll mooy gën a metti ci jaar-jaar yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ca dëgg-dëgg yi noonu la war a mën a mel ndax yàlla waxoon na ko ne ko ba mu ne ko rek na nga muñ ulul azmi mu woon booba lañ xam ne dana am nattu ya nga xam ne moom ñoom la ulul azmi amoon ca ulul ulul azmi min ar rusul buñ ko waxee mooy yonent yi nga xam ne ñooy gën a metti ay natt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom natt ko ci côté yëpp nag ci côté social ci côté famille bi mu bokk maanaam ci côté usra waa wàllu njabootam waaye natt ko it bu baax a baax a baax a baax ci wàllu économie nga xam ne lu jëm ci wàllu finance ak yu demee noonu askan mi mu bokkoon ak moom ci boppam taxutul mu demee noonu bi nga xamee ne Euh, Seydina Omar dugg na ci lislaam te daanaka ci foofu lañ tolloloon Seydina Hamza dugg ci lislaam te ñaar ñu dañoo doon ñoo xam ne dañoo wecci ay téeméeri téeméeri nit wala junni junni nit ci seenu njàmbaar ak seenu tur ca Seydina Omar it moom moo doon ñaan yonente bi sallallahu alayhi moo doon ñaan suñu borom mu may ko ci ñaari Omar yi kenn mu dugg ci lislaam muy Omar ibnu Hisham ak Omar ibnul Xattaab yàlla def it bi ko njabootam lu bari ci njabootam ku ci mel ne Abu Lahab wane ginnaaw suñu borom taw feexal na ko ci biir askan wi mu bokk ku rëy ku am solo ku baax bokk ak baayam benn baay muy Seydina Hamza radiyallahu taala anhu mu dugg ci lislaam nangul ko kon loolu liñ fi mën a jàngate mooy duñ wax mukk ne aw askanam ñëpp ko ko bañaan déedéet duñ wax loolu duñ wax mukkiin ne ay dëkkandoom ñëpp a ko bañaan am na ci dëkkandoom ñu ko nangul bu baax a baax a baax waaye am na ci askanam ñu ko nangul bu baax a baax a baax moom yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam te ñaar ñooñu buñ leen tuddee rek mën nañ ne làmboo na liñ bëgg a wax lépp ci wet googu borom bi dogalit sayyidatuna Xadija bu ngeen demee ci bind ya weesu woon waxtaan nañ ci moom lu bare bare bare bari wax nañ ci askanam wax nañ ci jikkoom wax nañ ci manaqibam ay baax-baaxam wax nañ ci lim dugg ci lislaam waxoon nañ lim taxawoo yonent yàlla bu tedd bi sallallahu taala alayhi wa sallam moom sayidatuna Khadija bintu Xuwaylid ca jamono jooju nga xam ne nag ci la yonent bi gënoon a soxla ndimbal jamono jooju nga xam ne dimbali ko du yam ak jamono ja nga xamee ne taxaw na ba lislaam am doole ña ko doon dimbali. donte sax ñooñu danañ ci am payug yàlla gu rëy waaye jamonoy màkka ji métti ja du yem mukk ak jamonoy madinatul munawara ja nga xam ne suñ boroom defal na leen ko ubbeeku ak kàttan waaye ci baax gum baax ak lewet gum lewet ak makaarimul axlaax yi nga xam ne moom dajale na ko dajale na ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa la ko yàlla tawfiixale nag ñu bari di dugg ci lislaam fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan xalisal xalbi lan faddu min xawlik mbaax gi nga baax ak lewet gi nga lewet mooy xëcc nit ñi sa jikko ju rafet yi moo xëcc nit ñi ànd ak ndimbalul yàlla ak yërmandeem bañ dugg ci bañ dugg ci lislaam faafu anhum wastaxfir lahum wa saawirhum fi l amri fa isa azamta fa tawakkal ala allah inna allaha yuhibbul wala kulli xaalin daal bu leen topp ci seenu mbon di leen baal ci di leen jéggulul di baal ci di leen jéggulul cay waxtaan ak ñoom nag bu baax a baax a baax di diisoog ñoom saa yoo xamee ne dem nga ba dogu ci dara rek euh, na nga bàyyee sa bopp ak suñu te xam ne yàlla bëgg na ñi nga xam ne dañuy wàkkirliku bàyyee ko seen mbir yëpp rawatina ba nga xamee ne ginnaaw ba nga xamee ne def nañ mboolem asbaab yi nga xam ne mooy waral mu am bu ko defee mottali ga ak amal ga yàlla ca yàlla lay des dafa mel ne ci aay bii la doon doxee rek lislaam di yokk nag bu baax a baax a baax a baax ñii dugg di yokk bu baax a baax a baax a baax a ca jamono jooju ay nit ñu am valeur nit ñoo xam ne nii kenn xamalu leen woon lu ñaaw lool lool lool lu xewoon démb ay nit yu am valeur bu ñu ko waxee mooy nit ñu am euh, ay jikko yu rafet daanaka ñooñu ñoo ci gënoon a fes ñoom it ci seenu mbon ñoom waa Quraysh ak seenu fiiraange nga xam ne ñëw nañ ci Abu Taalib jàmbat ay yoon Abu Taalib bañ taxaw daal ne kii dañ ma ko dénk rus leen ma ci saa yu ñëwee rek wax ndeysaan ñu rus ko ngir doon gim doon mag ak doon gim doon sangu waa Quraysh moom Abu Taalib mi nga xam ne mooy waajur Sidna Ali moom it waxoon naa ci moom ginnaaw bi nga xamee ne Abdul Muttalib mi wàcc na faatu na moom moo dénkaanoon moo dénkoon Abu Talib mu taxaw ko bu baax a baax a baax bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax euh, ndaw lii nga xam ne mooy Muhammadu man nañ ne ci loxoy Abu Talib sax ci la nubuwoo gi ñëwee lu bëree bari feeñ ci te ginnaaw waxtaan yi la ci ginnaaw wax nañ ci lu bëri bi nga xamee ne ñëw nañ ay yoon kalaame ko saa yi ñëwee rek ndeysaan Abu Talib feeñal ak mbëggeelam ci moom ñaan leen léeg-léeg sax day jooy waaw euh, ruasa yi bu ñëwee maanaam sangi xuray si bu ñëwee léeg-léeg day jooy ne leen tin rusut leen ma ci wax ak ñoom ñu rus ko bàyyi ko beneen côté bi ci desaan nag jigéen ju man jigéen ju ne ca wetam googu ci côté finance ci côté bu ko nit ñi xale bi ay kàddu yu ñaaw ak ay wax yu ñaaw bu dellusee ci soxna sooso mu defal ko ba mel ne dara xewut taxawu ko ci côté yëpp nag mujj gi daal ñoom ñu ne dañuy def benn muqaataa dañuy def benn daal dañuy dog yonent bi maanaam daal def benn complot boo xam ne dañuy embargo maanaam képp ku bokk ci Banu Haasim sax far léegi léegi duñ ko yemale ci jullit yi waaye képp koo xam ne da bokk ci famille Banu Haasim wala Banu Banu Mutalib ñoom sàng sa dajaloo nañ ne dañ lay def muqaataa duutu ñu jaayeteeg yow duutu ñu jëndanteeg yow duutu duutuñu takkanteeg yow duutuñu waxanteeg yow ba noppi nag dajale leen ci bërëb def leen xisaar maanaam gaw leen lekk du dugg naan du duggati wax jooju ñu wax ko dogu ko nag ne duñ ci dell ginnaaw bind benn saxiifa benn këyit wala ci der yooyu ñu doon binde taf ko ca kaaba ñoom ñëpp ñu signé ndeysaan euh, loolu nag la yàlla bëgg noonu la ko yàlla bëggee woon ndax yàlla wax naa léegi ci ginnaaw ne faaw mu natt ko nattu ulul azmi yi Seydina Nuux Seydina Ibrahim alayhi salaam Seydina Moussa alayhi salaam Seydina Isa alayhi ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi salaam mi nga xam ne moo juróomeel ñoo ñuy woowee ulul azmi boo dee jàng ci histoire ñii ñoo gën a metti ay natt ci yonent yi suñu borom nag da ko doon wax lu jëm ci wàllu muñ nag. na nga jël référence ñi nga xam ne ñooy ulul azmi ni ñu doon muñe nga muñ noonu nga muñe noonu euh, muqaataa boobu ñu defoon nag dog googu ñu ko defoon gaw ko wax dëgg yàlla métti woon na ci ñoom am na ci ñoo xam ne sax àggoon nañ ci di lekk xobi garab ñi àggoon ci di le di tooyal ay der yoo xam ne nii ñu yàgg la ñu tooyal ko ba mu tooy bañ mën ko yëy ñu di ko lekk ñi àggoon nañ di lekk benn benn bis tàndarma wala benn tàndarma ñoom ñu di ko xaajoo di ko lekk am na ci ñoo xam ne dañoo doxee noonu faatu yëf yi yàgg lool ba nga xam ne sax ci ñoom ñu nga xam ne ñoo defoon muqaataa boobu complot boobu ñoo dem ba seen biir ñuy yeddante naan lii daal jaaduwul ci mbokk ñu di ko def mbokk ku ci mel ne Zuhayr ibnu Umayya am na ci sax ñoo xam ne dañ daa bàyyi ba guddi ba mu lëndëm ñu dox ndànk fekk fa waa Banu Haashim jox leen lekk jox leen naan dawaat ci guddi gi ne na yem suñ diggante loolu am na ñu bari ñu ko def. Zuhayr mii da daa mujj moom fépp moom taxaw ca Kaaba ga daal daal ne daal yéen waa Makka daal nii ñu bëgg a def wax dëgg yàlla lii lu ñaawla la te mi ngi bëgg a yàgg mi ngi bëgg am ñetti at yoo xam ne def nañ ko mu xaata waa Banu Haasim yi suñuy mbokk lañ kat suñuy dëkkandoo lañ te nii ñu leen def ñuy faatu ñun ñuy lekk di leen bay ñuy naan di leen bàyyi ñuy jëndante di leen bàyyi ñuy takkante di leen bay te dara waralu ko lu fiiraange ak bañal Mouhamad ibn Abdullahi mii lii muy woote lii daal man rafetlu ma ko ba mu waxee loolu yaramu gaay ñu ñu bari ci ñoom daw Abu Jahlin moom naka jekk dafa bañoon moom saaga na Suhayri sax ne ko daal da ngaa seytaane yoon nekku ci baal mu continuer nangam nangam ba ñoom ñëpp daal ñu ne daal daal euh, saxiifa bañ bindoon taf ko ca Kaaba ga daal lañ ko bëgg a jël ñu xotti ko waaw lañ ca bindoon daal lañ ko bëgg dañ cee bëgg a dellu ginnaaw penc ma xumb lool ñu dem ci kaaba gi di xool bi ñu bindoon yàlla def bi ñu ñëwee dañoo fekk suñu borom dogal max yi lekk ko ca loolu musta am ci histoire max yi lekk saxifa bi maanaam këyit ba lañ ca bindoon lépp ba mu des turu yàlla wa nekkoon ca mbind ma nga xam ne bismika allahuma googu nga xam ne wàll waa Quraysh moom lañ doon tàmbalee nga xam ne euh, lu ñuy bind bu ñuy tàmbalee ci loolu la ñuy loolu rek moo ci des tur woowu xam ne nag lii yàlla àndu ci lii nag saxifa bii ñu bind taf ko ci kaaba gi ak kaaba mu amee sécurité ay max ñëw ba fii lekk ko ba des turu yàlla bismika allahuma wax dëgg yàlla lii ñu def day wane ne neexut yàlla yàlla andu ci ci loolu loolu jaar na fi mooy muqaataa boobu waaye it euh, bi yëf yi méttee ba métti foofu ñuy wax xabasa ñu naan ko Éthiopie nga xam ne najaas yi moo fa nekkoon ñu koy woowe al malikul aadil buur bu maandu ba nga xam ne euh, dëgg la mi ngi woon ci diiney nasaraan ñu di ko dégg mu siiw lool am ñu proposé yonent bi sax ne ko daal am na ca benn bërëb fu ñu naan xabasa tey mooy Éthiopie nekk fii ci Afrique buur bu fa nekk boo xam ne daal ku maandu la moom daal ab dëkkam wala réewam kenn du fa tooñ kenn tey démocratie am na fa lu neex waaye moom ñoo fay dund ci loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxe ndigal ñu def gàddaay gu njëkk gi nag dem xabasa gàddaay gu njëkk googu moom lañu tuddee moom lañ tuddee al hijratul ula mooy gàddaay gu njëkk gàddaay gu njëkk googu nag mooy gàddaay gi njëkk ci lislaam waaye nag booba bëriwuñ woon mën nañ ne lu bari ci boroom xam yi nett li ci séera nee nañ fukki nit lañ woon ak juróomi góor maanaam kon boo xool ñoom ñëpp groupe ba njëkk dem ñu ngi tolloon ci fukki nit ak juróom waaye nag ay saxaaba yu ràññee ko ndeysaan bokkoon nañ ca gàddaay googu ku ci mel ne Seydina Ousmane mi nga xam ne mooy ñetteelu xalifa incha allahu taala ca kanam danaa wax ci Seydina Ousmane aw dana feeñ wala jëfam dana feeñ foo xam ne fa taxaw ci moom. osmaan bokkoon na ca soxnaam soosu nga xam ne doomi yonent bi la sallallahu taala alayhi wa sallam muy soxna Roqaya ca la bokkoon Abu Salama ca la bokkoon ak soxnaam Ummu Salama ca la bokkoon saxaaba bu siiw boobu ñuy wax Seydina Abdurahman ibnu la bokkoon bokkut ak Ousmane ibn Xafaan mii nag Ousmane ibn Mas'ud mii ca kanam moom it danaa wax ci moom ca la bokkoon Mus'ab ibn Umayr ca la bokkoon Zubayr ibn al-Xawaam ca la bokkoon ñi ñëpp ndeysaan ci kibaaru saxaaba yi lañ bokk bokk ci njëkk tuub euh, xawoon na sonn loolu ne ci ay tolof tolof ñoom ca gàddaay gu njëkk ga ñoom ñoo dem Éthiopie dund fa nag dund koo xam ne bañ àggee buur ba accueillir na leen euh, bàyyi leen ñu dund ci jàmm buur boobu it di najaas yi dinaa ñëw ci moom incha allahu taala ndax mujjoon na dugg ci lislaam am taxawaay bu rafet boo xam ne yonent bi gërëm na ko feeñal ngërëmam ci moom lu bëree bëri ñoom nag dañoo mujjoon dellusiwaat li waraloon siwaat gi nag bañ déggee mooy islaamu sidna omar googu ma doon wax léegi islaamu omar duggug omar ci lislaam duggug Hamza ci lislaam ñu ne nag màkk léegi jàmm am na fa kenn bu ndoxataatu bu ndoxataal ya fa amoon amatu nappaate ga amatu fa ñoom ñu dégg loolu ñu ne ah comme loolu lépp amatu fa kon tey ñoo delluwaat ndekete yëf yi demewul noonu dëgg la bi Omar duggee euh, am na lu mu yokk bu baax a baax a baax ci seen doole bi sa duggee am na lu bari lu mu yokk ci seen doole waaye teewul nag euh, saay-saay waam ñooyu nekkoon ca màkk ña nga doon def lañ doon def te boolewuñ ci benn yërmande ak benn ndimbal ci lañ amaat ñaareelu gàddaay googu ca xabasa moo waral ñu naan alhijratul ula Euh, ak al hijratu asaniya ci xabasa yëpp waaye ñaareelu gàddaay googu it moom moo gënoon a bari ay nit euh, daanaka góor ñi matoon nañ juróom-ñetti fukk juróom-ñetti fukk ak ñett jigéen ñi matoon nañ fukki nit ak juróom-ñett moom it euh, saxaaba bu siiw boobu ñuy wax Jaafar ibn Abi Taalib bokk ak Sidna Ali lépp moom moo jiite woon mbooloo moom ak soxnaam soo suñuy wax Asma bintu Xumays ñoom it seen tur ñoom ñaar naa ko leeralaat ca kanam saxaaba bu sii boobu ñuy wax Seydina Abdullah ibnu ca la bokkoon Abdullah ibnu Jaxsin ca la bokkoon waaye soxna su tedd su baax soosu ñu woowee soxna Ummu Habiba bintu Abi Sufyaan nga xam ne moom it euh, ci soxna yonent bi sa alayhi wa la bokk ci la bokkoon euh, mooy ñaareelu gàddaay gi kon mbooloo mi gënoon naa bari ñu ñu ñu ñu def par ay dufa par ay groupe fexe daal nañ ba dem bu dugg xabasa euh, di fa dund dund goo xam ne wax dëgg yàlla ba ñu agsee najaas yi daalal na leen yaatal na leen bàyyi na leen ñu dugg ci lislaam euh, soxna Umu Habiba ca kanam incha allah dinaa waxit euh, ni ko ni ko yonent bi denc ndax bi mu koy denc booba daanaka man nañu wax ne jamono ji mu nekkee ci xabasa googu la ko denc Umu Habiba Abu Sufyaan mooy bàyyam Abu Sufyaan moom it ci tàmbali ga ak ci euh, marxala makkiya maanaam état bi nekkee màkk mën nañoo wax ne bokkoon na ci ñi gënoon a sonal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jullit yi waaye alhamdulilah yàlla def na mu mujj dugg ci lislaam rafetal wu lislaamam ba faatuwaale ak ngëm moom Abu Sufyaan bokk ci saxaaba yi radiyallahu taala anhu biñ demee ba atum fukkeel bi nag nga xam ne yonent bi woote na lu mat fukki at yi lëmm ci màkkatal mukarram ci weeru góor googu mu tudd léegi ci tàmbali muy Abu Taalib di doomi euh, Abdul Muttalib bokk ci doomi Abdul Muttalib bokk ak Abdullahi mi waajur yonent bi sallallahu alayhi benn baay di waajur Jaxfar mi ma tudd léegi ne moom moo demoon Xabas di waajur it Sidna Ali mi nga xam ne mooy ñeenteelu xalifa Abu Taalib ci la ko tawat ji dikkale ba mu faatu moom moom Abu Taalib euh, doonoon koo xam ne ku bëgg yonent bi la yonent bi ku ko bëgg la waaw yàlla seereel ne cofeelu yonent bi euh, wala cofeelam euh, ci bëgg mun am ci dugg ci lislaam gu ëmbaloon Abu Taalib yàlla wax la ko ci alxuraan innaka laa tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha du ci yàggee ne koo bëgg rek ak koo ëmbalu cofeel rek mu am hidaaya dugg ci lislaam déedéet lislaam ji moom ku yàlla namm sa texe rek wala ku yàlla nammal ak hidaaya moom moo ciy dugg am na ci mu fassiru ni ne aaya bii nii mi ngi wàcc yonent bi ci coxeel gi amoon ci Abu ak waxtaan yi ñu doon waxtaan ak moom euh, ngir rek ndeysaan bëgg mu dugg ci lislaam loolu xissa bu gudd la boo xam ne euh, daanaka sax ñu jàll wax àggale waxtaan wi moom mooy gën a am solo muy waxtaan yonent bi sallallahu alayhi euh, ci la faatoo moom Abu am nañu ne bi mu faatoo rajab Shaaban euh, sawaal euh, rajab bi mu faatoo rajab Shaaban Ramadan maanaam ñaari weer lañ ci teg rek ndeysaan soxna su tedd soosu nga xam ne moom it wax naa ci moom ay yoon muy soxna Khadija ci taxawaay yum ko doon taxaw ci lu baree baree baree bëri ci côté finance ci côté di dalal am xelam bu baax a baax a baax a baax ci lu baree bari moom it ci la faatoo nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokk benn at te rawantewul lu lu ay weer lu man ñaari weer am na ñu sax benn weer am na ñu ne sax matut weer ay fan waaye ala kulli xaal lépp day wara ne rek benn at euh, buñ faatoo ñoo ko bokk ca jege lool. moo tax at moom ñu koy tuddee atum njàqare ma waaw jàngalekati yi am na at mu ñuy tuddee atum njàqare atum njàqare ma ci yonent bi ak ci jullit yi ngir ne daal mel at ab diir bu gàtt yàlla nattuwaan na ko fi ñaari kilifa yu ko doon taxaw kii bàyyi la ci moom kii soxnaam la soo xam ne nii mboolem njabootam gi yëpp moo leen moo leen meññ moom faatu waajuram boobu faatu at moomu di atum njàqare ma moo tax ci at moomu noonu ci la yonent bi sallallahu sallallahu taala alayhi wa sallam dencee soxna sawdatu bintu sama xam ne waxtaan wi di ñëw incha allahu taala danaa danaa wax ci soxna sawda ndax waxoon naa ne képp kuñ agsi rek ci gaa yu baax yooyu aw turam wadd ci soxna yonent bi euh, danañ wax ci moom ba nit ñi xam ñii ndax yàlla moom moo leen tuddee nday way gëm ñi comme nañ taxe woon soxna ay Aïcha wax ci moom wax ci cosaanam wax ci ni ko yonent bi dencee euh, day baax ñu nit ñu wutal ab jataay boo xam ne njëlbeen nga bu ñuy ubbi waxtaanoo dañ ci nettali soxna Sawda mi moom mooy kan ku ko njëkkoon a yor euh, ci yenn circonstance la ko yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam dencee ak nan la nekkoon ci kër yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ndax Sawda euh, sayyidatuna Sawda ak sayyidatuna Aïcha ñoom ñaar sorewuñ ñoo bokk daanaka mën nañu wax ne benn at lii lépp nag mi ngi xew muy atum njàqare mi yeeg yëpp rek mi ngi xew maanaam euh, ñetti at avant ñetti at avant gàddaay gi di soxna Xadija mii di noppalu nga xam ne bi muy faatu amoon na juróom benn fukki at ak juróom ñu denc ko ca armée li Màkka ya jamono jooju mi ngi amoon juróom fukki at mu mel ne diirub lim nekk ci woote bi mook soxna Xadija moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mi ngi woon ci ñaar fukki at ak juróom comme ni ko borom nuurul yaqin nettalee kon day mel ne fukki at yi daal fukki at yi mu am màkk la ca desaat ci la xew-xew yi ëpp nag yi gën a bari yi gën a fés ci la xewe ci la faatuk Abu Talib ci la xewe faatuk Sayyidatuna Khadija ci la xewe denc Yonent bi sallallahu alayhi wasallam soxna Sawda ci la xewe denc Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Sayyidatuna Aïsa ci la nga xam ne jataay bii di ñëw ci laay waxtaan ci loolu waaye it mo al mujisatul kubra muy euh, maanaam euh, maanaam euh, miracle bu rëy boobu nga xam ne moom la ko yàlla taw fa xele woon ngir njàqare googu mu nekkee woon su borom dindi ko ci njaqare googu nag indil ko nag lu rëy loo xam ne nii yonente yi fiy jiitu woon ñu am lu mel noonu lu mel noonu mos am ci taarix muy al isra wal mi'raj ci loolu la xewoon nga xam ne bind bii ñu jëm incha allahu taala ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dencee woon sayyidatuna Sawda ak ni mu dencee woon sayyidatuna Aïsa ak xissab al isra wal mi'raj moom lañ ciy nettali ñoo ngi sant bokk yëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi